ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي nañ ci àndandoo yonentu sallallahu alayhi wa sallam abu mas'ud turam mooy uqbata bni amr al ansaari ci waa lansaar la bokk al badri ci ñooñ badar la bokk loolu nag am na ko wuute am na ñu saxal ci boroom xam-xam yi ne fekkee na xaswatu badr am ñu ne déedéet fekkewut ko waaye dafa wàcc rek ci am ndox mu nekk ci barab boobu ñuy wax Badr radiyallahu anhu na yàlla gërëm ko mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yonentu sallallahu alayhi wa sallama wax na ne inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwati luulaa ida lam tastaxi fasnac ma chita inna mimma adraka annaasu bokk na ci li nit ñi jot min kalaami nubuwati luula ci waxi yonantu gu njëkk ga ida lam tastaxi soo amut kersa ida lam tastaxi soo rusut ida lam tastaxi soo heresut fasnac ma chita defal lu la neex rawaahul buxaari xadis ji fii leen nañ ko ay firi ida lam tastaxi soo xamul jom fasna ma chita ida lam tastaxi fasna ñëw na it ida lam tastaxi istaxyaa yastaxyi inna allaha la yastaxyi min alxaq ñëw ne it fa faal ma chita au lieu de fasna maanaa sama borom tabaraka wa taala dana digale te fekk dafay tëkku mu mel ni loolu la jëfandikoo fii ci làmmiñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana wax ci suratu tafsil i'malu ma shi'tum def leen lu leen neex fa innahu bi ma taamaluuna basir waaw xam leen ne yàlla ngi leen di gis fii it yonentu alayhi wa mi ngi wax nit ki su fekkee ne amoo kersa dafa lu la neex sa borom dana fayanteeg yow sa jëf wala sax dafay xabaare ne ku amut jom moom lu ko neex rek lay def ku amut kersa dana def lu ko neex maanaam foofu fekk kuy def lu ko neex rek mooy dafa amul kersa kon euh, xabaar la ndax yonentu dana wax man kadaba alayya mutaamidan falyatabawwa maqaadahu min annaar ku ma fenal te tey kon na préparé da dëkkee barabam euh, safara maanaam préparé na dëkke na barabam safara faqad tabawaa ñu ne sax imaamul imaam ahmad bokk na ci ñuy tànn firim ñaareel mi waaye ñaar yëpp nag mën naa ne am na sax ci borom xam-xam yu ne déedéet xadis yi dañ koy bàyyi ci zaahiram amrun la ala zaahirihi maanaa ida lam tastaxi soo rusut fasna ma chita dafa lu la neex su fekkee ne li nga nekk buñ la ca fekkoon doo rus ndax bonut rusuloo yi sa boroom di la gis ngay def loola ndax bonut kon nag continuer waaye firi njëkk ma dafa mel ni moom la ñu bëri gën a tàmm bii nag dana dellusi ci laajal sa xol looy def rek laajal sa xol ndax tey jii buñ la ci koo koo koy rus ci gàdd gi fekkoon doo rus bu la ci nit ñi gisoon doo rus rusoo sama borom tabaraka wa taala di la xool nga koy def nga xam ne kon lu baax la wala ku yàlla dindi loolu ci xolom dootul rusati waaw jom ku ko yàlla dindi ci xolom lu ko neex def moo tax kersa lu am solo la lu am solo la yonentu sallallahu alayhi wasallam gis na ku yeddu mbokkam ndax ne ko yow danga bari bëri kersa ba mu ëpp yonentu ne ko daahu ba ko fa inna al xayaa al iman kersa ci ngëm yàlla la bokk yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ci beneen xadisu buxaari ak muslim alxayaau laa yati illa bi xayrin waaw kersa du du ñëwee lu dul yiw du ñëwee lu dul yiw benn nitu yàlla nee na kersa tax na ñeent fukki at mënumaa def bàkkaar mu ne bay yàlla warsagal ma wara muy sàmm ndeysaan xam nga wara moo gën a foor bàyyi bakkar moo gën a foor zuhud parce que ki bàyyi bàkkaar def na lu baax ga waaye ki nga xam ne dafa bàyyi yenn ci yu daganam yi ko yàlla daganalal ngir bañ yegg ci frontière woo xam ne mën na amu dugg fu mu warta dugg ko koy wara mooy sàmm wax dañ ne yonentu sallallahu alayhi dana dénk benn waay ne ko istaxi min allahi kama tastaxyi min rajulin min saalixi ashiratika ni ngay rusee kilifa ci sa gañoo gi fekk la ngay def loo warta def mu ne seetal seetal yàlla booy def loolu xam nga ne yàlla moo ëpp ku ñuy rus ci àdduna yàlla la ëpp borom xam-xam yi danañ wax ne xol bi su seedoo melow màgg yi ñeel yàlla seedu melow taar yi ñeel yàlla xalaat xéwal yi yàlla xéwalee jaam bi ak gàttañ lu gi jaam gàttañ lu ci sant ko yàlla tax jaam ba dootul mën a defati lu mu warta def ci kanam borom bi tabaraka wa te fuñ nekk nag ñu ngi ci kanam borom bi ñu ne it di setantal ngëneel yi sama borom ak yonantam sallallahu alayhi wa tuddal kersa dana dimbale nit ci mu melowoo melow kersa ku seetlu yool yim yool muy fay gim ci tudd dana dimbale nit mu jéem a meloo meloo kersa ànd ñu baax ñi dana jur jural nit kers di xalaat tamit yi nga xam ne mooy juddoo ci kersa na personnalité bi mu lay bi muy jox nit ki ak transformation bi muy defar ci nit ki dana tax nit ki jéem a am kers am na sax bu gën a wàcc boobu waaye terewul mu baax mooy kersa dafa tax eh, nit ñi dañ laa jox cër ay tax doo mën def lu bon bu ko defee nit ñi duñ la duñ la sikkal duñ gis sa ayib abu xaatim nee na inna almara ida shtadda xayaauhu saana waaw wa dafana masaawiya wa dafana masaawihi maxaasina Seydina Omar daan na wax ne man qalla xayaauhu qalla warauhu ku kersaam néew sàmmam néew te ku sàmmam néew xolam dee wa man maata warauhu maata qalbuhu yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne moo gënoon a am kersa jànq bu ñu euh, mayeegut jànq bu nekk ci bergendam nga xam ne rus na sax ni ñi gis ko Eh, ci jamono bi jànq di am kersa yonent ko ëppoon kersa moo tax kersa li muy baax baax ci jigéen la gën a baax góor ga nee na zeynul maratil xayaa taaram mooy kersa wa zeynul xakimi sum waaw ki nga eh, naka la tuddati ki am xel sage taaram mooy noppi sumt